jërë ngeen jëf mbokki internet allo Sénégal ba tey rek ci seen émission Mara dañ leen présenté kenn ki nga xamante ni mooy soxna Zeyda Ka nekk kilifa nekk boroom xam-xam bu mag waaye tamit nekk doomu kilifa ci wàllu wi nga xamante ni moom la nekkee tey nag ngeen gëjoon koo gis lool nag ci écran yi mu nekkoon rek ci biir xalwa yi nekk ci affaire yeeg yooyu noonu waaye nag li taxoon tey ñu génnam gii li taxoon tey tamit ñu seet si ko bokk na ci génn àdduna bi ki nga xamante ni mooy euh, euh, François Mancabou génn àddunaam bi ak leneen ak leneen yu nekk ci ginnaaw war na cee def ay révélation yu yéeme yéeme yéeme waaye tamit war naa wax àddu tamit xale yi ci élection yi nga xamante ni ci lañ jëm war naa wax ci tamit xale yi nga xamante ni ñu ngi rayante seen biir gis nañ démb gis nañ démb caaroy ñaari xale yi nga xamante ne ay xarit lañ nee nañ ñu ànd ba jéye googu am seen kaw ñu reyante gis nañ tamit bërki démboo njaay cees ñaari xale yi nga xamante ne doon nañ joppat doon nañ jàppante ba kenn ki jàmm moroomam yooyu yëpp dina ci wax ay leeral indi ci ay tegtal waaye tamit mbokki internet Allô Sénégal bu ngeen bëggee gis xam-xam bëgg gis njariñ topp leen ñu te ngeen déglu bu baax soxna Zeyda Ka ndax dina leen indil xam-xam dina leen indil njariñ comme ni mu ko daan defee saa su ne rek jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal topp leen ñu rek ñu wax leen ki nga xamante ni moom mooy soxna Zeyda Ka bismillah ñu ngi lay bàyyi nga duy mbokki internet Allô Sénégal yi maa ngi nuyu suñu mbokk internet yi di nuyu senegal di nuyu àdduna wërngal këpp waaye di nuyu sama boroom kër bi ma yàlla booleel Cheikh Tidiane Guèye bu Al Amin bu Tiwaawan di ko ñaanal jàmm ci taxawu gi nga xam ne mu ngi ma koy taxawu. di nuyu sama wayjur bu góor di ko ñaanal jàmm waaye di nuyu àdduna wërngal këpp kulluhum koo xam ne yaa ngi bàyyi xel chaîne bii di Allô Sénégal macha allah di leen wax agsi ngeen kër gi seen kër la ci jàmm ak salaam bi nga xam ne moom la ñu yàlla boole maa ngi leen di ziar bu baax a baax di la delloo nuyoo bi di la delloo kàddu gi. jërëjëf yaay booy jërëjëf kàddu yi rafet na waaye rek euh, fi ñuy commencé suñu waxtaan mooy gëj génn bi nga xamante ni gëj nga koo génn est-ce que mën nañoo xam euh, lan moo waral loolu. waaw alhamdulilah beneen yoon di sant yàlla bi nga xam ne may na ma wér ak kàttan gu ma mënee taxawaat jàkkarlook askan wi ndax euh, je me bien bi may mujjee génn dama wax carrément ne gis naa lëndëm mm-hmm. képp ku am doom. ak sa doom na nga wut ñaan képp koo xam ne yaa ngi door a sëy na nga wut ñaan yàlla def euh, matul 4 jours tiwaawan la fa xew xew fa liir yi gaañu ci gaañu gu doy waar ma am lu ma metti lool nag ndax man bokkumaak ñi nga xam ne dañuy révéler benn musiba mu génn ñu génn di jubile man bokk ma ñooñu man nag am fu ma làq woon di ñaan ci li nga xam ne yàlla may na ma ko di sàkku mboolem borom xam-xam boo xam ne rek jëflante nga ak Zeyda wala jaar nga ci yaru Zeyda maanaam Zeyda jaar na ci yow parce que kilifa yu bëri ñoo ma ŋànk macha allah ñu doon def ay ñaan ci réew mi ngir yàlla mën a fóot tilim yi nga xam ne gis naa ko ak lëndëm lëndëm yi ndax boobu ba léegi mbir maa ngi wëy di am ñu ngi jaale suñu mbokku seetkat boobu nga xam ne daba booy lañ koy wax. bokkoon naa ak moom liggéey fale ca béréb bële nga xam ne rajo FM la woon Safir FM ma nekkoon fa ak moom ci liggéey bu mucc ay macha allah mu nekkoon jeeg bu ndaw sëy bu yàggul dara. yàlla jël ko ci diggante bi te defaluñu yàlla lum ñu fi bàyyee kon nañuy wax lu rafet di jëf lu rafet boo gisee lu lëndëm lu bon luy ñëw ci sa njaboot ngalawaay bu ko bàkkoo yow seetkat bi yow seetkat bi bul ko bul ko bul ko kontaanee boo gisee musiba ndax ku ne xam na ne saraxu dëkk dafa rëy kenn nit àttanu ko def naa nag samay moyen lu ma mën li nga xam ne yàlla nangul na ma ko it xam naa ko mais la dëkk bi mu ngi wéy di lëndëm ba léegi ndax ñiy dee ci ay ay ay ay caprice dafa bëri ñiy dee ci lu dul dara dafa bëri ay kilifa yoo xam ne am nañ ay doom am ay jabar wax dëgg yàlla seen dee di luus lool dafa bëri kon nag nag ku ne di moytu te saraxu dëkk bi dinañ ko wax ci kanam tuuti incha allah di wax ne daal lëndëm lëndëm yi mi ngi wëy di fi nekk ba léegi te mucc muy yow muy man muy ak ku mu mën a doon yàlla rek mooy muccal waaye sarax dina fànq deegu ñaaw sarax dina guddal fan sarax dina rafetal lu waroon a ñaaw moo tax rek ñu gëjoon a génn ci liggéey lañ nekkoon ci jaamu yàlla lañ nekkoon ci wëy di ñaan ngir musiba yi deñ ndaxte dëgg-dëgg deey metti na torop day métti na trop macha allah waaye Zeyda. Mhm. dañ la mës a dégg. Mhm. benn jour nga ni lu sénégalais di jooy benn fan. Mhm. yow wala yéen seetkat yi. semaine ngeen koy jooy mu mel ni da ngay toog parfois di xool situation réew mi fan la réew mi jëm. sa diggante ak seet laa la bëgg a wax lan la ak lan nga ñu mën a wax ci seet. macha allah loolu moom damay wax ne nit ki du ko neex mu gént gént lay neex mu ñëw ci nit ki. loolu moo waral loolu. boo gisee ma gis musiba bi matul sax 4 jours wala 5 jours mu dal ci ay yaay yu wësi noonu xam nga kon loolu dafay firndeel li may wax toujours man waxu kasaw kasaw duma ci ne fulla ak fayda laay wax képp koo xam ne rek jox na ma boppam ci réew mi gis nga ci jàmm parce que du man maay dogal suñu borom mooy dogal te ker gi nga xam ne nii samp na ko ci samay wayjur muy wàllu xam-xam ci ndey ak ci baay macha allah dañ ci judd seet mën naa ne bi ma ciy wax lu doy waar boobu xale bu ndaw laa dégg nga kon nag sant yàlla daal ci ni nga xam ne noonu la ma yàlla di wane wan nag nekkul luñ la wan yaa ko moom waaw ku ne xam na ne boo yoree télé sa néeg da ngay seetaan fu la neex mais taxul nga dem fu la neex moo tax yow miy seet dangay boole ragal yàlla ci li ngay gis di waxtaan ak nit ñi ci lu xel mën a dégg mm. te bàyyi naxante bi mm-hmm. surtout sunu mbokk sëriñ si dóorante beeg warkat bi bari na enregistré wante bi weerante bi wuññi wante bi at mii nag moom képp koo xam ne yaa ngi def loo xam ne nii buggoo kenn fekk la ca soo mënee nga bàyyi ko ndax soo ko bàyyiwul dinga feeñ di nga weeroo kilifa yu bëri ñu ngi daanu ci ay mbir yoo xam ne kenn xaaru leen fa woon parce que junni nit toog nga leen di wax xaala laaw xaala rasul dafa yéeme àddina bi yëpp gëm la mm-hmm. te yow xamoo bu ñu deewee fan lañ jëm mm-hmm. yow xamoo yow sa bopp fan nga jëm mm-hmm. ngay wor yàlla di wor sa bopp képp koo xam ne yaa ngi def lu bon di ko nëbb booy boo nga bàyyi ko dégg nga ndax dégg jege na ñëpp ñëpp la jege waaw ñu ngi sant yàlla nag ci gis-gis bi ñu yàlla di jox mm-hmm. te nee naa leen gis aayul de firi moo aay hmm? seetkat yu bëri dañuy gis hmm. mais munuñu firi la ñuy seet parce que seet làkk ay làkk la hmm. tubaab yëpp a xees mais nekkul ñëpp ay wax français Mm-hmm. ku ci nekk am na làkk booy wax. waa léegi boo maîtriser wul nit ki la muy wax wala seet gi la muy wax. Mm-hmm. di nga jég gàggante nit ñi ci ay musiba surtout sarax yi nga xam ne gaa yaa ngi koy def ci euh, plateforme yi xew léegi ay TikTok ak yu kenn xamut wala turu yàlla yi. déedéet parce que turu yàlla bu nekk tënk na raw xaan tënk na jinne tënk na xuddaam. Mm. ñeenti mbir yooyu lay boole tënk ko boo woowee turu yàlla. Mm. xamoo saraxam. xamoo xuddaam bi lay wuy si lan lay wër xamoo xamoo xamoo xamoo demet demet mm-hmm. yaa ngi am danger bu rëy boo xam ku ne xam ne làmp boo ko tegee ci say bët doo gis pourtant làmp dañ koo utile dañ koo liggéey pour nga ciy xool mm-hmm. mais am na foo xam ne boo ko fa tegee du baax ci yow kon nañ bàyyi turu yàlla yi ñuy fowe bu njëkk mbóot walla secret mm-hmm. boo amul xaalis boo ko jëndee di nga bayal nit ki tool pour mu jox la benn ismu benn tur boo xam ne da nga koy liggéey pour mën ci am tawféex mhm. léegi dafa yomb torop ni nga koy ni nga koy utiliser yooyu yëpp dafay yokk loraange ci dëkk bi mhm. waaw ndaxte sëriñ bi bu njëkk mhm. ku doxiwaan dañ naan la moytul bul jommi léegi loolu defatuñ ko dañ naan la moytul bala laa agresseur yee laal kon rab yi ñoo possédé agresseurs yi parce que ki jam démb démb xale bu ndaw dëkkandoom dama ko xam bu baax ñim jàkkaarloo kër ñaari xarit lañu ànd nañ biñ ne suba la dee bi di am ànd nañ ñoom ñaar géej hmm. waxtaan fooree séq jàmm ñi leen xam ñëpp xam nañ ne ay xarit lañ hmm. mais damay ñaan képp kuy dund rek del ñaan ne yàlla bu nit nekk sama malaaka parce que nit bu nekkee sa malaaka rek bu bis bi ñëwee dalay rey waaye léegi hmm. dama seetlu ni déegi déegi ñu ci bëri xale yi nga xam ne dañuy jamante koo ci waxal danaan la pourtant ñoom kat ñoo defandoo lii pourtant ñoom ñaar ay xarit lañ. ba bërki démboo Ndiaye jour tabaski dee gi nga xamante ni am na fële ca ca ñaari xale dañ naan ñoom ñoo doon ànd. Mhm. loolu loolu lan moo koy indi est-ce que du tamit li nga doon wax léegi ne rab yi ak jinne ñoom ñoo possédé xale yi. ñoo xale yi ma lay wax ni caaroy la mujjee am man fa laa juddoo sama baay bu baax bi fa la fa la nekk ñëpp xam ko fa alhamdulilah ci mbaax gi nga xam ne fa laa moom laa fa fekk nit ñi. dégg nga néeg bu nekk dugg nañ fa kër gu nekk dugg nañ fa ku nekk na ngay muslu di di di ñaan yal yàlla musal la ci musiba boo xam ne jugewul ci sunu borom direct ndax yàlla bu la nattoo nattoom dina la def ba nga àttan ko waaye seytaane bu fekkee rax na ci mbir moomu dina gañe boole la ci njabootam te nañ bàyyi xel ci ñi nga xam ne borom xel yi laay waxal de ñi nga xam ne tënku nañ ci diine lislaam tënku nañ ci xam-xam parce que ku amul xam-xam munoo gérer dara waaw seytaane bi ko yàlla tegee fi mu ko teg moom it nee na ko incha allah dina ànd ak safara nit ñu bari ci sa njaboot. waaw loolu mi ngi wéy di feeñ daal. Mhm. dëgg la dëgg la jërëjëf waaye buñ jógee rek ci wàllum seet parce que wàllum seet lañ doon wax moom moo indi lii lépp. Mhm. ci euh, xam-xam gi nga xamante ne am nga ko ci seet. Mhm. waaye dañuy dikk rek ci faj gi nga xamante ni yaa ngi ciy jàppale doomu aadama yi. Mm-hmm. rawatina ñi nga xamante ni dañoo amee impuissance sexuelle. Mm-hmm. yaa ngi leen ciy jàppale ba ñoom ñëpp ñoom ñoo tourné sax di la ja di jaajëfal. Mm-hmm. loolu noonu sa digganteeg ñooñu ak faj googu noonu ak liggéey boobu nga ko def fan nga ko teg. waaw faj moom macha allah dama naan nit foo samp ren ba déwén rek. dëgg dëgg jom la fa téye ak fulla ak fayda. bëri ci nit ñoo xamante ni. tey boo leen xamee fii suba nga xam leen fee mm-hmm. man gannaaw ba ma sama baay bi sampee fii ci parcelle boobu ba tey maa ngi fi macha allah waaw di faj nag ci pen euh, impuissance sexuelle di faj parce que nit ñi dañoo jàpp ne góor rek lay dal day dal jigéen mm-hmm. jigéen boo bu bu xel mi subiree problème yu bëri dafay dem ba loolu dootu ko soxla te bu boobaa àddinam dafay yàqu mm-hmm. ndax dootul def dara pour dara te jigéen ak xale ñooy àddina moo tax sunu faj macha allah dañ ciy dimbale góor dañ ciy dimbale jigéen góor goo xam ne tamit rab daf la téye sonal la lool di la yàqal di la def lépp loo xamante nii rek lu baax la doo ko am buñ ci juf jëflantee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allah di nga gis jàmm ñi nga xam ne tamit ñoo ngi nekk bitim réew te ku ne xam na ne waa bitim réew ñoo ŋànk Sénégal mm-hmm. benn nit bu tukki day dundal fukki nit. moo tax ñun dañoo war a téye suñuy kurus di leen ñaanal jàmm ndax ñoom bu ñu amee jàmm ñun ñu am jàmm. ndax yow it am na am na loo séq waa bitim réew ci wàllum këyit wàllum leneen ak leneen da nga leen ciy ñaanal. waaw waa bitim réew dañuy jëflanteek ñoom ci lu bëree bari macha allah ba ci wërsëgu nit ku xees parce que bëri na nit lu mu fay dem maanaam sonn lool te yàlla tàggatalu ko. nit ñu xees ñi nga xam ne ñoo fa nekk mm. te liggéey ak am dafa sore mm. wërsëg dañ koy sangu mm. waaw wërsëg dañ koy sangu ndax bu fekkutoon loolu tan du lekk yàpp <laughs> tan amul loxo bu muy reyee mm-hmm. amul paaka bu muy daggee mm-hmm. te du lekk medd waaw yàpp bu bu bu bees tàq la yàlla di jox chaque jour gudd na fan mm-hmm. am na am na am na ay cër ba ci moom tan sax yaxam ak boppam ak lépp dañ ciy liggéey lu baax loolu barkeel moo ko waral kon yàlla mi nga xam ne mooy maye boo làqoo ci turam moom mi nga xam ne mooy kun fayakun ci tur boo ko mën a woo macha allah dina la wuy si ca ko laaj moo tax daal waa bitim réew dañ leen di ñaanal spécial wax dëgg yàlla ndax bëri na ku feebar ñu def ci seen loxo jàmbaar lañ ci waa Sénégal waaw moo tax daal képp koo xam ne rek ñoo ngi jëflanteeg yow danañ boole yërmande ci liñ lay defal incha allah. waaye tamit euh, gis nañu résultat yi nga xamante ni yaa ngi koy def gannaaw ba nga xamante ni yaa ngi jàppale waa bitim réew. Mm. ci utum këyit gi ci utum wërsëg géeg lépp gis nañ tamit performance yi nga xam ne yaa ngi koy def ci samp nit. Mm-hmm. ak ubbi ko ak ubbi nit ak yooyu noonu gis nañ tamit performance yi nga xam ne yaa ngi ko ciy def. Mm-hmm. waaw macha allah loolu boo ma ci laajee dama la ci sawar a tontu. ndax dama naan nit su fekkoon bi mu nekkee liir noonu lañ ko bàyyee mm. kon indikam ngay doon mm. mais liir day judd mm-hmm. ñu sonnaat ci moom di dàmp di ëlbati di sang di muusal di def lépp ba nga taxaw ne korok ba keroog ngay dox mm. nit koo gis ak lu mu mën a doon lépp loo am muy ndombal tànk gan la ci yow liir la dañ ko war a toppatoo sinon danga koy am ñàkk ko muy soxna nga takk ko mu ñëw ci yow gan la ci yow dañ lay teg ci yoon ñaanal la ci parce que yonent bi nee na ñetti gaaf yi am na ci kër am ci soxna am ci waruwaay kon loolu noonu boo ma ci laajee ci ah. wàllu samp nit aha dañ dañ ciy def que ça soit clair nekkul Zeyda moo la may alal wala moo la samp déedéet ñaan mi ngi mel ni tey yow nga tabax sa kër ba pare fokk nga wut ay raxaskat yu ko raxas ba mu set pour nga mën a installé wu ñaan loolu lay jariñ ba pare yonent bi dafa ne al aynu xàqun bët dëgg la làmmiñ dëgg la wax na ne ñetti xeetam yii bu ñu deewee ñaari xeet yépp cat moo leen rey ak làmmiñ hmm? kon loolu nekkul loo xam ne dañ koy foowee nit mais sénégalais yi tamit est-ce que sénégalais nañ. loolu noonu nga wax al aynu xaqun boobu est-ce que ñoom ñi ngi raxas seen bopp léegi nii. waaw sénégalais yi macha allah ñi ngi góor góorlu bu baax nag ñu bëri ñi ngi ciy raxas seen bopp te ñu wàññi tuumaalante bi. Hmm. sëriñ siy jaxase seetu jaxase yi ñuy jaxase. diw dëmm la diw nàngam la diw nàngam genre wax yu rëy yooyu ñuy def nañ ko bàyyi. Hmm. nañ ko bàyyi. gis nga buñ ko bàyyiwut léeg leen nit dina ñëw ci yow fekk moo ëpp kàggu fuuf du sa morom waaw léegi nag euh, yàlla bu la naree nattu dëgg ci li ngay liggéey ci la lay nattu kon nañ bàyyi xel seen bopp xam lépp mën lépp amul ci li nga xam ak ci li nga mën fexeel rukk ko ba mu nooy macha allah ku ñëw seet si la xolam sedd man loolu laa gëm te ci laa nekk. mi ngi waaye dañuy dañuy dañuy delluwaat ginnaaw. ci wàllum seet gi nga xam ne yaa ngi koy def ndax gis nañ nga mel ni luy seet ci wàllum ram la gis nañ tamit da ngay seet ci suuf da ngay seet ci ndox da ngay seet ci leneen ak leneen est-ce que du tamit seet li la sénégalais yëpp jagleel ne yaa ko moom est-ce que du tamit dëgg la macha allah seet li ma ci am li gën a doy waar sax mooy ilham hmm. waaw écouteur baatin dafa am macha allah nga toog jub mbir nii ñuy wax ci sa nopp yi mbir mi nii lay demee nii lay demee nii lay demee du mat sax one minute nga teg sa bët. loolu moo gën a yéeme ci li nga xam ne loolu la ma yàlla may su ma la xasee xam rek mën nañ ma wan ci yow lu bëri loo xam ne dama koy ragal wax sax. surtout jamono yii surtout jamono yii musiba yi may gis dafa yéeme. Hmm? li may def mooy di ñaanlu di ñaanlu ba fii may waxee yow tey jii nii maa ngi santaane xadara bi nga xam ne sam moo ko bàyyi caaro yi moom nekku fi dafa dem bitim réew. Hmm? par aljuma dañuy wasifa sikar maa ngi santaane dog yu bari di santaane ñu togg fa ay ñam di joxe ngir ñaan yàlla musal nit ñi ci musibe yi nga xam ne dafay faral di am képp koo xam ne yàlla mën noonu la ko rek def ko parce que musiba bi ndox muñ tuur la xamoo ndax dalay dal xamoo ndax day dal sa moroom te nga yow gis rek nga ci am mooy li ma wax seetkat mooy ki yor teleem taal ko day gis France gis fu nekk waaye taxul mu mën faa dem taxul mu moom ko waaw moo tax nag kum dikkal au lieu que nga yaakaar lu neex la mais lu naqari la lu naqari la mais nag sant yàlla. waaye dañoo gis sa xaatim yi nga xamante ni yaa ngi ko teg sa kanam ñu gis ni mbind mi yéeme na. xaatim yi sax la ñuy wax yéeme na est que yii nii yow yaa koy liggéeyal sa bopp wala dañ la koy liggéeyal ak wala sax bu dee da nga koy liggéey. mbind yi mbind yi kursu kabir ci la bokk. joué na joué naas ci la bokk dañuy def euh, euh, fukki junni basmala xajul ci benn soxla mhm. dégg nga ay xawsa ñoo koy bind parce que man euh, temps bi aw mu ko lool dégg nga maa ngi nuyu sama mbokk xawsa yi bu baax a baax a baax mhm. ñu ngi dëkk fële Kaolack ci Medina baay di leen ziar bu baax ndax lépp loo soxla ci quantité quantité bind yaasin loo ci soxla dégg nga waaqian loo ci soxla lépp loo xam ne rek dana safal yaramu doomu aadama ci turu yàlla loo ci soxla ñoom boo leen joxee heure rek dañ la koy defaral daal la koy yónnee macha allah mais nag li ñuy wax boo fa demee di ut te xamoo la ngay utit da ngay lor sa bopp kon da ngay jaar ci Zeyda mooy bunt bi ci kàttanu yàlla dinaa xam man maay tailleur bi nga xam ne maay natt sa soxla xam fi mu toll ma daggal la ko ba mu yem ci yow bu boobaa doo lor kenn kenn du la lor sant yàlla ci loolu. macha allah macha allah léegi ba léegi dañuy xuus ci sa wàllum liggéey. Mm-hmm. ndax gannaaw samp bi gannaaw ubbeeku yi nga xam ne yaa ngi koy jàppale doomu aadama yi mm-hmm. lan ak lan nga ñu mën a wax ci sa wàllum liggéey loo xamante ni tamit mooy yaa ngi ciy jàppale doomu aadama yi. waaw macha allah jàppale bi moom amul dayo amul commencement dégg nga di wax lu bëri sax kañu la. ñi may jëflante xam nañ carrément dégg nga am na ci nag yenn nit yoo xam ne jaruñoo jàppale. Hmm? waaw parce que woor dalee na yomb. waaw man nag boo woree damay reetaan ndax bi ngay ñëw xam naa ne workat nga <laughs> mais yàlla moo ñu boole. Hmm. li may jëflanteeg yow ma war la koo jox parce que àddina bi ay heure la. ay seconde la ay minutes yu ndaw la. Hmm. dégg nga benn heure bu dem du ñëwaat. te ku nekk war na ruus dee sa bàyyi sa ginnaaw gàcce. loolu laa gën a ragal ci wax kon nag nañuy ñaan rek di rafetal saa su nekk mm-hmm. waa ndimbali moom bëri na awma dayoo ciy wax ko macha allah. mu mm-hmm. ngi noonu waaye tamit dañuy wax ci euh, wàllum actualité mm-hmm. ndax actualité bi daf ñoo dab muy euh, coow loolu nga xam ne moo am Sénégal ci François Mancabou boobu noonu nga xam ni dégg génn na àdduna coow loolu noonu ba nga ko yëgee lu mu la def waa xanaa metti ma lool mu bokk ci lëndëm lëndëm yi may wax ci at mi ci dëkk bi ci période bi ñu toll mu metti ma lool nag waaye ñu ngi ñaan ndéem ñeme nañ ko mm-hmm. président de la république du Sénégal di Macky Sall mu bàyyi xel bu baax ne dafa am kum fi fekkoon te bu fi jógee day am kum fi bàyyi dégg nga mbir yi louche na dégg nga man laag du man yow laag du yow kilifa la goo xam ne bis bu seddalee mbir yi mu sedd bis bu baaxalee mbir yi mu baax bis bu yombalee mbir yi mu yomb kon jàpp nga ni moom mooy responsable li nga xam ne moom moo am maanaam duma ko wax responsable di ko ci tooñ mais moom mooy kilifa ki dee moom mooy kilifa ñi nga xam ne ñoo téewoon kooku ba mu dee mm-hmm. kon kàddoom soxla nañ ko ak lu mën a xew sa kër man tey su ma fekkoon sama kër sama njaboot di xeex dinaa ne diw toogal diw toogal comme yàlla may na ko cër boobu ci ci ci Sénégal dafa war a wax balaa trop loolu laa xam ne ay conseiller la yu may baaxee Macky Sall la beneen affaire bi nag mooy nañ ñaan mucc ci musiba yi war a xew parce que lii san fekk commencé si am na yeneen yu war a ñëw am na yeneen musiba yu war a xew loolu lu ciy pexe tamit mucc ci damay wax sarax moom yaa ngi dégg amuma ci dara sarax moom képp koo xam ne parce que dafa am loo xamante tamit luy taal am réew nit ñi comprendre ñu ko gis nga joxe azaka dafa yomb lool bëri siiwaloo ko est-ce que mës nga ko dégg sax ñu koy waxtaanee ci Sénégal naan date bi la ñuy joxe azaka ñaata magasin moo nekk ci Sénégal ñaata béréb yuy dugal alal moo nekk ci Sénégal te ñaat téeméer bu nekk juróomi dërëm la un million bu nekk vingt cinq mille bëri na kilifa yu denc ay milliards farataaluñ loolu ñàkk a joxe azaka day taal am réew nañu génne alal ji jox ñi ñàkk loolu yàlla moo ko digle loolu force la neexaluñ ci kenn ku wax rek ku xam dat bi nga xam ne nii moom la Séné moom la nit ñi war a génne asaka Sénégal di ko waxtaane man de wax dëgg yàlla sama baay bu baax bi moo tax ma ma ma ma depuis ma nekk xale ma xam nan la ñuy joxe asaka ndax bu heure ba jotee néew doole yi dañuy taxaw listam lay def lépp lu dencoon génne ko man maa koy mës a tooñ sax ne ko papa am nga xaalis de ñaata vingt cinq mille nga génne kon loolu ñaata million la dégg nañ dellu ci yàlla ci ay jëfam te ñu rafetal yi tañ bàyyi bañ a nekk fii bañ a nekk fii maa ngi nuyu tamit suñu mbokk chrétien yi ndax Sénégal pays layit la ñoom it waa jàngu bi ñu ngi leen di ñaan ñuy ñaan ci réew mi soxla nañ seen ñaan lool man mi tëdd guddi di gis kii di gis kii xam naa li may wax kon réew mi daal mi ngi ci loxoy président réew mi mi ngi ci loxoy président foofu la daaneel ay waxam waaye dañuy dikk ci lëndëm lëndëm yi nga xamante ni gis nga ko ci réew mi muy ñëw est-ce que am na sarax yoo xamante ni denc nga ko yu war a mën a fànq loolu noonu wala ay tegtal yoo xamante ni yaa ngi koy dencal Sénégalais. xanaa ceeb bu bari na génn ceeb bu bari na génn képp kuy borom kër sa doom bu nekk konteel ko benn kilo ceeb nga génne ko jox ko koo tane képp koo xam ne daal bëgg na mucc ci musiba yi na génne ceeb ndax senegal ku xëy ceeb wala mburu ngay wëri te ceeb bi weex na. bëri na nañ ñaan yàlla daal lépp weex tàll doon jàmm ak salaam waaye képp koo xam ne borom kër nga konteel say doom nu ñu toll ku ci nekk nga génneel ko kilo ceeb yàlla mën na musal nit ñi ci balaa bi nga xam ne ñàkk joxe ak ñàkk bëggante moo ko indi wor bi dafa bëri wor bi dafa bari patron wor ki muy liggéeyal nga toog a ko bokkal ndey ak baay di wax mu aristare la yóbbu nit di bëgg nit di ko enregistré ci ay wax yu ñaaw nga ne da ko bëgg soxna wala da nga koo bëgg yor kon guerre ngay préparé. nañ bàyyi di di di di di di guerre guerre boo xam ne existé wul ci senegal waaw loolu daal maa ngi koy wax di wax nag di jéggalu ñëpp di jéggalu képp koo xam ne rek wax naa lu la vexé jubluwuma ci loolu dégg nga jàngalante rek ak waxante dëgg dafa dafa jot loolu kese la. kàddu yu rafet na fi ñuy tëjee suñu émission rek mooy élection yi nga xamante ni mi ngi jub lan nga gis ci élection yi ndax gis nañ ni tamit élection yi campagne bi jour tabaski la commencé jour tabaski gis nañ ñaari xale yi doon xeex fële ca Thiès ba kenn ki jam moromam démb gis nañ caaro yi ñi nga xamante ni doon nañ xeex ba kenn ki jam moroomam mu mel ni élection yi heure bu jub see rek coow loolu commencé waat. waaw damay dellu ci li ma waxoon bakkan moom lañ naroon a rendi yàlla def jéggal ki nga xam ne moo waroon a rey doomam teg fa am xar mu waral tabaski gi deret di tuur fu nekk kon sarax amul lu mu mënul faj nañ dellu ci sarax yi te préparer élection bii ci jàmm ak salaam bu sarax yi génnul dëkk bi dina gën a metti ndax lépp loo gis rekk bu pënd bi wuree fekk ñëpp dee du am sens kon nag prévenir mieux que guérir nañ dellu ci sarax yi képp koo xam ne élection yi nag li ñuy wax am na ci ñoo xam ne ñu ngi jëflante ak man macha allah maa ngi def ay tettal tamit pour yàlla def ci réew mi jàmm ak salaam loolu rek laa ciy ñaan waaye wax dëgg yàlla metti moom euh, metti moom day gën a metti mm. waaw nañ sant daal tey ñaan yàlla seddal comme li ma wax rek natt bu ñëwee na ko borom àttan maa ngi jaajëfal ñëpp ci li nga xam ne nii waxtaan waxtaane nañ ko fee mi ngi noonu ñun tamit ñu ngi lay jaajëfal xam naa ni tamit mbokk internet Allô Sénégal yi doyaluñ ci ci kàddu yi ndax heure boo génnee rek wax njariñ heure boo génnee tamit wax loo xamante ne sénégalais yëpp buñ ko déggee ne macha allah dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak mbokk internet yi nga xamante ne ñoom ñoo la doon bàyyi xel. waaw tàggatoo bi dañuy ñaan rek dañuy wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wa quwwata illa billahi al aliyyil azim di wax yaa rabbi bi jaayi ahmadi wa ahmadi layin li hëzal abdi ku la di ñoo ngi ñaan lépp luy jàmm rek yan na ko yàlla def ci askanu senegal di wax rek nañu bañ a diigal gaal gi nañ wat gaal gi mu génn ci nga xam ne ni cóole na ci biir ndox mi demul dikkul te bu diigee ñëpp diig kon nañ ñaan rek ci jàmm ak salaam yàlla jële fi jafe-jafe bi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk internet al senegal